ma dajale xale yi ni leen moytu leen violence xeexloowuñu kenn di leen yàq yëfu kenn mais nag devoir la ci yéen ngeen protéger institution yi protéger commune bi protéger Sénégal gi ndax dëkk ñu koy liggéeyee doolay waa Médina dugg ci waa Médina taxaw liggéey ko donc bu ci nit profité ci ay événement la ñu liggéeyoon ay ati at nga bëgg a benn bis yàqalaat ñu lépp donc ci loo xam ni ñun pratiquement amewul Médina xëy na kër jàmbur lay amewul tribunal lay amee mais problème bi ñu am mooy jàpp ñu am mooy foo jógee jëm tribunal da ngay jaar Médina boo jaarewul Corniche jaare siis wala Blaise Diagne wala 22 wala Centenaire wala Autoroute donc foo mënti jaar pour dem foofu dañuy dugg biir Médina donc muy passage bi métti ndax fu nit jógee rek dañ fi mujj a dajaloo pour mujj a dem concentration boobu bu raxee ay wëyu agression yeeg sàcc yeeg gaañante bi yooyu yëpp day mujj a métti waa Médina mais quand même li ma kontaan tey am fierté ci xale yi mooy taxaw nañu depuis

suba heure bii dinañu kafaardee delluwaat beneen yoon ak benn aussi kafaardee ba kenn du ci am gaañu gaañu kenn du ci génn àdduna maa ngi gërëm xale yi di gërëmaan ñi ko encadré derrière laay ak ñëpp wasalaam loolu laa bëggoon wax jërë ngeen jëf donc moo tax euh, ma dajale xale yi ni leen moytu leen violence xeexloowuñu kenn du leen yàq yëfu kenn mais nag devoir la ci yéen ngeen protéger institution yi protéger commune bi protéger Sénégal gi ndax dëgg ñu koy liggéeyee doole yi waa Médina dugg ci waa Médina taxaw liggéey ko donc bu ci nit profité ci ay événement la ñu bëgg ay ati at nga bëgg a benn bis yàqalaat ñu lépp donc ci loo xam ni ñun pratiquement amewul Médina xëy na kër jàmbur lay amewul tribunal lay amee mais problème bi ñu am mooy cat bi am mooy foo jógee jëm tribunal da ngay jaar Médina boo jaarewul Corniche jaare siis wala Blaise Diagne wala 22 wala centenaire wala autorité donc foo mënti jaar pour dem foofu dañuy dugg biir Médina donc muy passage bi métti ndax fu nit jógee rek dañ fi mujj a dajaloo pour mujj dem concentration bo bu raxé ay wëyu agression yeeg sàcc yeeg gaañante bi yooyu yëpp day mujj a métti waa Médina mais quand même dama ma kontaan am fierté ci xalé yi moy taxaw nañu depuis 9 h ñu dañuy protéger sen commune duñu ñu xeex dañu way kenn du ko yàqal donc daf ñëne ko tay ma kontaan may ñaan demee aussi le matin très tôt ñu yend aussi défendre aussi suñu commune défendre aussi suñu Dakar ak Sénégal ñu continuer noonu jamono ji dëkk bi yëngoo rek ñu continuer défendre suñuy institution mais nag nañu moytu violence ndax ay du yëm ci bopp borom xeexloo ñu kenn te li ñu am ci naqari dafa doy te bëgguñ leneen rax ci moo tax ñu jàpp ni ñu dégg appel boobu suba heure bii dinañu kafaardee delluwaat beneen yoon ak beneen aussi kafaardee ba kenn du ci am gaañu gaañu kenn du ci génn àdduna maa ngi gërëm xale yi di gërëmaan ñu ko encadré derrière laay ak ñëpp wasalaam loolu laa bëggoon wax jërë ngeen jëf